Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm euh, di leen wax ni yéen ci seen émission Vox Arena ñëw euh, fi nga xamante ne moom mooy Fass mbaaw ñëw seet si euh, ki nga xamante ne moom mooy maamalamin ñëw waxtaan ak moom gannaaw bi nga xamante ne combat ki nga xamante ne mooy Garga 2 taxaw na mu nekk combat boo xamante ne ñu bëri bëggoon nañ ko Vox Arena daal di ko taxawal. macha allah mu nekk combat boo xamante ne ñëpp a ngi koy xaar waaye mbokk yi balaa ma la mi di dama leen di wax ngeen gaaw a abonné ji ci seen télévision Equivox TV ndax que ça soit euh, Tyson de Franc euh, loolu yëpp mbokk yi en direct ngeen koy am ci seen télévision Equivox TV fii ak combat bi lépp loo xamante ne am na ci ay euh, ci ay ci ay mbérembese comme ni ma koy faral di waxee di ngeen ko am ci seen télévision Equivox donc gaaw leen gaaw abonné ji salaamaaleykum Amadou. maaleykum salaam maa ngi delloo ziar bu baax ñaa ginnaaw ñu sant yàlla julli ci yonent bu tedd bi ñooñu gërëm suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ si Abdourahmane Mbacke yàlla yàlla yokki leeram taas suñu barkeem di nuyu àdduna kilifa diine kilifa aada yëpp di siyaar ñëpp di bëggee ñëpp di jox ñëpp wàccuwaay di wax nag maa ngi masawu àdduna di masawu lu làmb mooy ki nga xamante ni moo fi jot a jóge muy Abibulaay notre frère di ñaanal yàlla sunu borom xaaree ko àjjana moom ñoom fa fekk yëpp Eh, métti na trop mais nag sant yàlla rek yaaw notre frère aussi tamit mu ngi fii moom i dafa décédé démb muy Hamoudi Awa ñu koy ñaan aussi tamit sunu borom xaare ko àjjana loolu moo ñu permettre sax tey bañ defee fi émission bi. nuyu sama sëriñ Baye Karim Mbacke Fall lu baax a baax ak sëñ Sidi Mbacke alxuraan ak maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam ak Gaawaan ak borom Beral Baye. waa Sicap Mbao waa Fass Mbao ñëpp waa Mandela ñëpp maa leen di di leen piqué. am solo. face à Jokal nga ñëw wane sañ-sañ yàlla may landam ndam boobu ba léegi gars yi di wax sa combat mais saa ñu la waxee yow lu metti rek bu ñu waxee nga ne Garga pour nga jël ko. non loolu dama ne dama dama ne d'abord sama côté dama ci sant yàlla ko parce que mbër mbër boo gis wala mbër bu danger bu ne mbër moo ko fi jëlee. Hmm? comprendre nga dama jàpp ni man Garga dafa bokk ci yoon sama yoonu làmb war naa mën a bëreeg moom. te et puis bi ma taxawee dëgg ko tamit amateur yi xam nañ ne lii lu logique la comprendre promoteur bëgg ko recherche ko dox ko ba mu sotti ñu war a bëri te sañ-sañ bu ma am bu jël ko nag après la comprendre. mais est-ce que Garga yomb na est-ce que mënu woon lijjanti lu gën a nooy loolu Garga 2 gars yi neen nañu ci ñu dàq bëri ci làmb. mais boo ko boo ko defee. doo nekk champion. boo xoolee li nga xamante ni moo gën a yomb nga def ko mais foofu nga nekk rek. mais lamb risque la quoi il fallait que nga jël risque pour mun a yegg ci yenn gars yi samay moroom kenn da nga maa jël te Garga deux champion la moo njëkk ci làmb def na lu ci làmb comprendre nga bu taxawee pour bëreeg man aussi tamit dama ciy sant rek et puis xam nga awma leen lu ma ci tiit jëluma ma am pour pour daan ko. mais est-ce que daan Garga yomb na. ah ci li nit ñi gis nit ñi bëri wuñ nag maay bëri mais pour man yofa yomb ci man. nga ni. parce que daan gërgër de laa wax de. waaw loolu laa lay wax ni nit ñi moom xam nga bu ñuy xalaat seen xalaat la ñuy wax mais man laa la pour man loolu gën a yomb. combat bi mu taxawee ba tey pourcentage yi gars yi dañuy jox favori ki nga xamante ne moom mooy garga de ci xeex bi ci bëre bi ah ci lépp yow nan nga gisee loolu. waaw c'est normal parce que ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo lay wan ni ngay toogee mais man ñëw ma kenn ci xeex nii bëre nii physique nii lépp xale laa nekk suma yoon topp suma yoon comprendre li war suma diggante man ak moom. nit ñi après lañ koy comprendre bis bu ñu jëflantee ba pare dañuy xam ni maamalamin Lamine mii ñii duñu ay moromam. ba ci Garga doo moromam. wallaahi. ah déet Mama Lamine sa waay. wallaahi du ma moromam. doo moromam Garga de. koneen ku dul moom sax du ma moromam. mais yow sañ-sañ ngay waxee sañ ngaa jàkkaarloog Mama euh, Garga de da ngay da moom ni ngay waxee. non mais sañ-sañ sañ-sañ mën-mën la waaw li ma sañ mën naa ko. te et puis tooguma fii di wax loo xamante ni da ngay dem pour lu lay neex say amateur wala luy neex say téléspectateur man li may li may wax lu ne ci man la. yow booy bëree effectivement loolu ngay indi da ngay ñëw attaquer sa adversaire jeexal làmb ji ñu ñibbi mais est-ce que ki nga xamante ne moom mooy Garga 2 di nga def loolu parce que loolu benn. ndox du bàyyi yoonam. nga ni fa ndox daan taa boo demee di nga fa fekk tepp tepp Garga 2 lu mu bañul ci combat bañu ma ko ci bu taxawee man maa ko fay fekk manipuler ko duma ko daan mais sa waay lan moo tax nga wax loolu Garga 2. yee Garga 2 amul lu may lu may lu may lu may bàyyi xel ci moom bu ma ko naree def ma bàyyi bëre. mais déet yi nga bëree aussi amagoo ko ni Garga 2 ba tax na nga naan dama ko fay fekk du ma ko daan ko ñibbi. waaw mais yéen da ngeen di jàpp ni amaguma adversaire bu mel ni Garga 2. mais bëri na ak yu mel ni Garga 2 Youssou Ndour bi Balla bu may bëreeg moom dañ na ma moo pour doole moo la mën mais yàlla suturaal na moom ak yéen ci te waxuñu waxu dara bëri lañ def ma duma ko daan. comprendre buur si nit noonu làmb noonu la quoi pour man wax ji mooy bëri nii rek commentaire yi et mais li war ci digg géew bi du ñëw man la. yow calculé woo loolu. non non man amul lu may calculer ci làmb bu ma ko naree def ma bàyyi bëri yab yabee ma noonu samay supporters quoi ñu may jox combat may dem di calculer wala di hésiter et tout ça. attention. non man doomu dàngu laa wax. koo xamante ne bokk na si dàq xeex. sa waay gargaare ko fi fekk jële ko fi. yow nga ne da ngay jàkkaarloo Garga 2 moom man looloo ma xaw a jaaxal fu mu toll nii. <laughs> non effectivement dina jaaxal dina leen jaaxal parce que yéen defoo leen dara man maay def man li may def bàyyi mu ci xel ci Garga ñim daan ak ñim bëreel ñooñu ak man duñu benn. ñooñu ñooñu la mais maama Lamine maama Lamine la yow aw ma lenn lu may tiit moom wala amul lu may xaar ci moom wallaahi bu combat bi doon suba suba suba ñu dem bëri ko parce que loolu mooy sunu métier loolu la ñu war a def kii dañoo war a bëre mu jeex ñu seeti leneen c'est ça quoi. mais est waaw ku la ko wax da yomb ku la ko wax da lay nax quoi yow lu yomb amul fenn. waaw ko dem tamit du yomb. moom bu tëddee dina xam ne am na komba waaye bu gars yi def ci xelam mukk na ko yow yaa mën yaa ko doole. mais li yi di wax kon ci euh, di di ko wax est bu ko déggee aussi du du loolu la gëm. bu ko gëmee rek torompew di nga di nga xeex mu laq set yaa ma gën a xam man jaruma xeeb tollu mu ne mbëri mais mbër laa te am na lu ma bëgg am na fu ma bëgg a yegg mais du gar deux laa la wax moom moo may téye ci lool techniquement pourquoi gars yi foog ne moo la dàq bëri. ah parce que loolu lañ gis parce que comme moomu jiitu si làmb mooy loolu man li ma mën comme comme chaque jour ni ma koy waxee rek man li ma mën jarul sax nit ñi di ko xam. mais maa ngi ñaan yàlla mu wane yàlla suñu borom mu wane li may mën chaque jour mooy que bu ma amee combat yàlla dimbali ma ci ma ndam. yow sa ngëm-ngëm ci bëre bi ci xeex bi yéen ñaar ku ku ci avantage. wallaahi dàqu ma bëre dàqu ma xeex ëpp ma doole amul benn bu ma ci ëppale après la ñuy comprendre nag. bu leen bëree ba pare. buñ bëree xam ni mooy loolu bokkuñu de bilaay bokkoo leen. mu Zambaraay lu mu rëy rëy puso bu dërëm moo koy peral. da nga jàpp ni Zambaraay. Ah, waaw noonu lu mu rëy rëy rëy coono amu fa puso boo ko jëlee boo ko bësee boo ko bëttee mu per. déet déet bu ñëwee dana entraîné du mel ni Zambaraay quand même. non mais <laughs> comme maanaam wax la quoi waaw Zamb Zambaraay boo ko déggee moom melul ni mais maanaam lu mu rëy rëy bu ñëwee mën nañ ci moom am nañ am nañ pexe ci moom. alors mu dem aussi. am loo xamante ne atula ci moom bokk ci 100 pour cent parcelle bi axe boobu war a tàng jër seen digganteeg waa parcelle. waaw ah, loolu moom wax dëgg yàlla man yàgg naa ko wax seen écurie boobu jàmm rek fa mën a xew te et puis képp ku leen mën a ñëw dooleel nga dooleel leen parce que luy comme ni xaw ma académie xaw ma lan ah. waaw. voilà ñoom taxawaay biñ ci am comme Papa Sow. diggante parcelle ak jàmm. est ce di neexal waa parcelle aussi. di leen may jàmm nii di ñaanal gars yi non man Cheikh Oumar waa Parcelles dara man Garga 2 laa amal soxla te man xaw ma ni sax Parcelles la dëkk. nga ni pour man sax ay Cambérène yooyu la dëkk. non loolu laa foogoon effectivement mais nag comme yàlla boole na leen ñu boole seen xol doon benn yàlla na ko yàlla continuer rek mais man moom laay bëreel et puis damay ñaan yàlla aussi yàlla may ma ndam ci kaw sa doomu nday di bëreeg ki nga xamante ne moom mooy Papa saw Papa Sow di ànd ak Garga di entraîner ak 100 pour cent bi yow it nga ñëw dugg foofu. waaw noonu la rek Papa Sow bu wax ne Garga entraîné ci man damay ànd ak Siteu dem entraîné ci parce que nous sommes nous sommes nous sommes des familles quoi bi ñu dalee ànd mën a Siteu yàgg na combat ma Papa Sow bi ñoo ko préparé ndoo pendant six mois ñuy entraîné ko match yi nu muy demee. match comme. match yi match entre entre Siteu Papa Sow entre Mama Lamine Garga. 2-0. nga ni waaw. loolu Barça la. dañ di gagné deux fois. 2-0. incha allah ci kàttanu yàlla. saa boo toogee fii di reetaan naan 2-0 ngeen di gagné gars yi tamit ñu ngi liggéey de. waaw man li may wax nii boo ko seetee it moom loolu lay wax da ngay wax ku ngay wax li nga gëm rek ak li lay soxal ak li nga fas yéene def mais li ne suñu yéene mooy tey jii ñu dugg parcelle daan leen 2-0 duggaat fa daanaat leen 2-0 parce que ay adversaire lañ quoi ñoo war a bëre suñu biir. duggaat fa daan leen 2-0 mooy naam bu ñu fi jugee sax war nañ fi mën a duggaat. parce que am na ay leaders yu nekk foofu. Mhm. am na leaders yu nekk feneen looy wax sa adversaire. mu waaj rek ak ay mbokkam di ko ñaanal wér. waaw di ko ñaanal wér di ko ñaanal wér la yàlla def saison bi tijji si jàmm feebar bi ñuy wax mu jege fi gars yi jàpp dat joxe dat mu ñëw ñu bëree voilà yàlla may ma ndam ci kaw. man li ngay minimiser Garga 2 man moo ma jaaxal quoi mais bon garaawul. waaw mënu ma wax loo xam ne newul ci man. li ne ci man rek laay wax comprendre mais moom déggulum la adversaire bu ma respecté la te xam naa ko bu baax ba mu dalee bëree bëreewum kon kooku mënoo ko ñàkkal kersa wala nga koy minimiser si loo xamante ni comprendre mm. ay kàddu la déedéet. mais waaw. xam nga ay qualité naa ko bu baax wallaahi xam naa ko bu baax champion la laa la wax. bu ma ko daanee xaw ma fa la ma gars yi war a yóbbu. je sais pas. yow mu boo ko daanee fi nga jëm ngay xalaat. xalaatuma bu ma daanee de. moo ko daanee rek lay xalaat. waaw loolu daan incha allah mais fu fu ma jóob fu ma gaa yi war a yóbbu laa ah, boobaa nga nekk jinne de. non jinne amul ne làmb ji nag balaa ñoo xam ne jinne laa ñu bàyyi bés kanam. waaw. ci Mama Lamine. noo gisee Vox Arena ni mu ñëwee ci làmb xam nga tëgg ay combat yoo xamante ne gars yi dañuy ne ay combat yu doy waar la déjà Franc Tyson Tyson 2 noo gisee. non marqué ngeen seen empreinte quoi wax dëgg yàlla mën naa ne li jafe woon yëpp defar ngeen comprendre Tyson 2 Franc loolu combat bu neex la wax dëgg yàlla yow mais nag bu ngeen demee ba taftal ci maam Mama Lamine ak Garga 2 ma kon marqué ngeen seen empreinte et maanaam ngeen ñëw ci jàmm comprendre nga gars yi dalal leen ci jàmm taxaw leen jàppale leen ndax ndax ku bëgg liggéey ak ku bëgg ku ko jël mu liggéey yaakaar naa ni dara waru leen mën a boole. comprendre ñu ngi leen di ñaanal aussi bonne continuation lépp lu ngeen di ci làmb yàlla na kawe seen njot yàlla na yàlla def ba ngeen di tëgg ay bis yu mag a mag a mag et pourquoi pas yàlla mun na ko ndax yàlla yàlla mooy lépp comprendre moo ñu saak ki prendre chaque jour que fais dañuy ñaan yàlla li nga xamante ni moom moo koy sabab di ko dogal te dañ koy nangu eh, ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu dem li ci kanam mooy dàq quoi vox voilà mbokk yi gis ngeen euh, Mama Lamine loo tamuy tàggoo ma leen di fàttali encore une fois que ça soit euh, Mama Lamine Garga 2 ou ki nga xamante ne moom mooy combat wu Tyson 2 Franc en direct et en exclusivité sur Equivox TV lay doon abonné leen gaaw activer euh, notification bi pour am li nga xamante ne moom mooy avant combat bi pendant et après le komba lépp loo xamante ne am na ci di ngeen ko jot voilà Mama Lamine looy tàggoo. waaw di santaat yàlla bu baax a baax di julli ci yonent bi tey di gërëm sama wajur waaw di ñaan suma sëriñ si Abdourahmane Mbacke yàlla yàlla yokki leeram taa suñu barkeem di wax sama mbokk séeréer yëpp maa ngi leen nuyu maama Lamine am na komba moom ak gërgëdë ñu wax nañ ma ci ñaanal bu baax a baax a baax ak sama mbokk Joolaa yeeg soose yi mm, lébu yeeg gars yi yëpp maa leen ñaan aussi xam nga taxaw ma ci bis bi comprendre mm-hmm. di wax waa aussi tamit combat bi taxaw na adduna yëpp daal képp ku mooy seetaan comprendre képp ku may bëggee ngir ngir cofeel gi nga am ci man rek maa ngi la koy delloo si tamit di la wax ni bis bi taxaw na lu ci waaye mën pour jàpp ci mu ñëw jàpp ci parce que effectivement ñun bis mel nii daf ñu ngi bëgg trop trop mais liñ ciy manqué à plupart mooy ñi ñuy jàppale. Mm. te gars yi kat gis nga ñu may muuma. Mm. et puis ñu defal muuma. mais nag ñu ngi leen di tàllal loxo ngir ñëw jàppale ñu ci bis bi parce que benn lam du yëngu waaye buñ ci boolee benn rek mën naa yëngu. et puis ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp ñi nga xamante ni ñoo dëkk ci koñ bi muy waa Fass Mbao waa Fora aussi waa Diamaguène Tableau Xaadim guy ga comprendre nga ay yëmbal waa jaxaay waa Gambie aussi tamit ñoom ñëpp maa ngi leen di woo ci bis bi comprendre nga ñuy ñëw di di participer parce que c'est nous dans nous ñun liñ tax a jóg mooy suñu koñ mais suñu koñ aussi tamit pour dimbali suñu waajur ak keneen nga xamante ni yàlla boole ñu nga am ci ñun yaakaar boo xamante ni tey yaakaar nga ni ñun war nañ ko mën a faj ci loolu la ñuy sàkku ngir ñu ñëw def ko di nuyu suma benn maman boo xamante ni mooy madame Sarr moom moom day def lépp ngir man ñu amoon mel noonu dañuy sant bu baax a baax di nuyu mbay waalo bu baax a baax a baax ak suma Cheikh Serif ak baaba Ngom ay Karbala eh, ay ñoom Maxara Matar Cuuj ñoom ñu maa ngi lay sant bu baax a baax ay abo lamp comprendre nga di jaale àdduna nag ñi fi jot a wàññeewu mm-hmm. voilà muy suma benn maire bu nekk Gambie bi ñuy wax. dafa wàññeeku aussi tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xaare àjjana waaw ak suma benn grand bu ñuy wax Amady Amady Awa moom dafa décédé yàggul dara yàlla na ko yàlla yërëm te xaare àjjana di wax nag benn message bu gàtt rek bariwul mooy que làmb foo mu góor la ku daan rus waaye bu sa carrière jeexee dañ la sàmmal sa jëmm ngir ba keroog ngay làqu ki dem ragal yóbbu ko fi des ñema béwu ko fi la de la part de Zil Balé dama ci lancé benn appel boo xamante ne mooy maanaam nit ñi delloo ci seen xel ci yàlla ñu bàyyi ñuy def bàyyi ñuy wax waaw ah, ñu ngi koy sonal fu mu tëdd te soxlawul loolu yàlla jëlee ni ko fi dañuy julli di ko ñaanal te bàyyi wax ju ñaaw yi ñuy wax waaw wax ju ñaaw dëkkul fenn bu xasee ba tasaawro rek daanaka mun na yàq te warul yàq quoi comprendre nañuy jël leçon suñu bopp bañ a wéer kenn bul bañ teg kenn toor ne diw moo tax lii am li am suñu borom la neex neex woon suñu borom du am mun nañoo jël deux cent cinquante millions def ko ci Abibulaay bu suñu borom newul du tane du tane Abibulaay fañ nañ ko ba tànk bi wér mu beneen tànk jëlaat mm-hmm. kon loolu lañ ci mën bu ñu wéer kenn ne lii kii la yéene mm-hmm. yàlla moo def mm-hmm. te kuy tëkkale sa bopp ak yàlla yaa ngi dóor sa loxo ci ëkk yàlla mooy so moo sàkk jaamam mooy borom jaam bi te nu ko soobee rek noonu la koy defee dañ delloo ci seen xel te bàyyi li ñuy wax wax di ñaaw baaxul. mu ñëw ci suñu papa Max mi nga xamante ne euh, keroog bi muy jël avance mu ngi may wax wàllu mobilisation di wax ni euh, que ça soit Lansar gox bi yëpp hmm, macha allah niñ leen di gungee xale yi di ñëw di taaral bés bi yaakaar naa lancé waale na sax appel sa adversaire wala yeneen mbër yi nga xamante ne promoteurs yi dañuy sonn si ñoom tëgg leen mais euh, macha allah wàllu mobilisation bi nga ñëw. ñun comme ni mu la ko waxee rek dëkk na ñun ñoo xam ne làmb rek lañ bëgg et puis ndam rek lañ bëgg aussi tamit. te xam nañ ni ñu defet te làmb nag ñett moo fa am daan daanu mat sa nii waaye ñoom gëm nañ seen mbër te et tamit duñu am bis mukk mukk di xaar dara ci seen mbër lépp li war ci man dañ koy def te et man du ma leen jiitu esaat wallahi bu dee pour man rek waaw waa Vox Arena nañ ci na seen xel dal quoi xanaa ci beneen camp bi la ñuy wax affaire yooyu mais man moom aw ma problème boobu esaat bi wax dëgg yàlla dinañ ko duy ba fees dell incha allah parce que mbër bi aussi tamit buñ ko fayee ay millions tamit li ko war mooy def mobilisation su ko defee promoteur bi aussi moom it day am cofeel pour mën a di ko tëggaat quoi te ñaan nañ yàlla di liggéey di liggéey di liggéey ba fur et à mesure fu muy munti yam rek ñu xam ni fii la yem mhm. mais incha allah buñ jëflantee man ak waa Vox Arena ba pare après di ngeen xam ah di ngeen xam ni waaw waajaa ngi nii quoi waaw ñu ngi ci sant yàlla bu baax di ñaan yàlla aussi tamit bon continuation mhm. et puis lépp lu ngeen ci bëgg rek suñu borom defal leen ok jaajëf voilà mbokku téléspectateurs yi euh, gis ngeen émission bi nga xamante ne def nañ ko ak Mama Lamine gannaaw bi combat am taxawee hmm, muy première liggéey bi nga xamante ne jot nañ ko def ou bien première réaction moom la ñu bëggoon a ñëw lu bëri loo xamante ne bu soobee yàlla daañu ko def ak moom que ça soit ay séance ne bëgg nañ koo def pour lépp yokk lamb mais aussi yokk euh, Vox Arena également yokk mbër mi nga xamante ne moom la ñuy liggéey parce que loolu moom mooy suñu credo incha allah ñu leen di jox dig daje très bientôt ci beneen numéro Vox Arena Peace.